xibaar mbokk yi bisimila li ci gën ak tiis nag mu ragalu kon ci taw yu wàdd fi ci Ndakaaru ca Yaraax nag juróom-benn doomu aadama ñoo fa ñàkk seen bakkan ginnaaw miir bu daanu seen kaw ba taw bi xëy kon rek gàllankoor nag wàllu dem bi ak dikk bi Dakar nag xat ba kenn amul foo jaar embouteillage tar lool ñu bari nag yéex na yegg kon seen bërëb liggéeyukaay autoroute à péage nguur gi nag jël dogal dakkal fay mi fii ak ñuy fay jëlee rek ndox mi Mbaye Ndiaye moo ko wóolu xam ne mel ne kon ginnaaw rek mu demoon jaale ji ca gox bu yaraax xibaar yi mbokk yi bisimilah dal leen ak jàmm juróom-benn doomu aadama nag mu bokk ci rek benn soxna rek bu ëmboon kon juróom-benn weer ñu faatu kon mu di nag ab bilang bu ñu rek fësal ci diwaanu yaraax ginnaaw nag taw bi fa wàdd kon démb si guddi jàpp rek fajar bi nag nguur gi yóbbu fa ñaari million ngir am la fa ab jaal soxna Aïssatou Anthia Touré Kane ak libaas lay ndiir ci leeral la. ci suufu xeer yi la niw yi làqu woon ñu toll ci juróom-benn ñu faatu ginnaaw miir bi daanu seen kaw. mbir yi amoon na xaaju guddi ginnaaw taw yu metti ñun daal dañoo dégg daal muy yëngu dégg nañu muy yëngu tuuti ñu ubbi suñu néeg dégg bi ñu ubbee suñu néeg ñu dal di génn ci bunt bi bi ñu génnee ci bunt bi rek ndox mi engagé ñu ñëw fii ci raay bi mer bi dal di daanu. dañoo fekk ñuy nelaw léegi nag bi ñuy nelaw ñu jékki-jékki dégg dip affaire yi ndox mi fekk ñu si biir kii bi bi ñu génnee mënuñu sax génn ndax courant bi ñu daal di génn ñi si des nag. ñu toog si biir amuñu ñooñu def ñu génn bàyyi leen. ñoo ngi fii si yaraax si gox bi ay séeréer yu jóge dëkk ba wut si liggéey ñoo fi dëkk ñu nekk fii si ay anam yu méngowul ak yoon. tool laa fi la yore woon ay faire 92 laa fi yore woon tool di fi béy bon bi ma fi béy nekkee biir yaraax di fa luye bi affaire bi tar ci man atatu atatantuma luyaas bi ci laa def noonu defar fi ñaari nekk pour ma nekk fi ak suma njaboot. ñu nekk bi ba jamono bi ñu tojee fale zone captage ci la suma mbokk yooyu ñëw suma benn jigéen ak ànd ak ay mbokkam ñëw ñu nekk fi nekkandoo fi noonu la demee ba tollu fi mu toll nii. lii am ni tey doonul lu bees moo tax jar nañu xoolaat yenn dëkkuwaay yi mairie Hann Bel-Air di ñaan dimbal nguur gi ginnaaw collectivité locale yi seen doole bëriwul la. liñ ci gis tey mooy. Euh, euh, Euh, en tout cas daal problème la ndaxte tey euh, mun nañ ne juróom-benn nañu gis mais mun naa ne fan yële ci kanam amoon na ay baraak yoo xamante ne dañoo lakk mu amoon fi également cas de décès et mun naa ne très souvent daf fiy faral di am loolu nag je pense que dafay euh, loo xamante ne il faut que en tout cas état bi mën ñu ci jàppale parce que collectivité locale bi amul moyen yu muy déployer. pour euh, taxawal fi dispositif yu wara mën a tax jumtuwaay yoo xamante ne danañu mën a sécuriser les populations donc euh, loolu vraiment mën naa ne tey xaw na ub euh, suñu bopp daal. ñi mucc ci drame bi di fësal seen naqar. ñenn ñi di lem seeni bagages moo te xamuñu fu ñu jëm nguur gi ci wàllam teew fi mbir yi am. mastawu waajur yi ñi ñaq seen bakkan ak ñeent ñi fa am ay gaañu gaañu bàyyi fa ndàmpaayu ñaari million ci suñu koppar. naqaar ak kon rek tiis ca diwaanu Yaraax nguur gi nak jël dogal dakk rek bay mi kon ci autoroute à péage bi rek fii ak ñuy fay jëlee nag nañu ndox mi jëriñ nag yor kaarange bi réew mi rek ne nguur gi mooy jël en charge wàllu rek pompe ndox mi kon ak gratuité bi ci wàllu rek boobulee fay ci autoroute à péage Mbaye Ndiaye ministre bi nekkoon ci micro il faut immédiatement faire libérer la voie. gouvernement bi woote na comité de crise gannaaw taw bi wàcc fii ci ndakaaru ak loraange ji mu jural askan wi ci loolu sax jël nañu dogal ubbi autoroute à bi daal di koy ubbil ñëpp kenn nag du ci fay dara. Euh, li ñu ci fas yéene ñàkk nag euh, koppar googu gouvernement bi moo ko fas yéene gàlloo ñu jël tamit ndogal daal di pomper ndox mi nga xamante ni moo nekk ci route nationale numéro un bi yëpp ministre de l'économie et des finances fas yéene jàppale ministre de l'hydraulique ci koppar gi ñu mën a xayma ci 500 millions ci sunuy koppar ngir daal di koy jàppale ci liggéey bi gouvernement bi taxawal na tamit euh, benn programme d'assainissement bu toll ci 450 milliards mu doon lu takku nag ci koppar wante dinañu def sunu kéem kàttan ngir daal di motale li ni mel euh, bu ko defee rek li nga xamante ni moo di problème d'assainissement euh, dinañ ko fàtte fii ci diwaanu Ndakaaru. ministre kon rap intérieur xëy rek amal ab jàll fële ca diwaanu yaraax ca Padoa suuf si nag moo fa mëbax tax rek kon ay kër bëggoon fa daanu nañu nag benn conduite ndox bu waa SDE moo fa daal di éclaté terewul nag ñaari woto daal di ñëw fay rek surux ca diwaanu Padoa Badara Diop ci Leral taw bi bëri bi wàccee ci dakaar démb daanaka nag loraange yu bëri la jural ci ay quartier fii ci dakaar fii ci Patte d'Oie Nord daanaka musiba mbaba kumba moo fi naroon a am suuf si daal di xar gannaaw éclatement ab tuyau boo xamante ni waa SDE ñoo ko moom daal di yóbbaale ñaari ndaamal ci kàmb gi nga xamante ni moom la fi mujj def. ay kër yu bëri nag ci bile quartier ñoom it mujj ñu ci li nga xamante ni moo di gile jiye alors donc ndox mi bu jógee foofu en bu ñëwee bu comprimé woo day am effet effet accélérateur alors ndox mi bi mu ñëw fii di ma boo boo dëgërul sax mu yóbbu la. mbir mi indi tiitaange gu mat ci biir njaboot ji li ni mel tax ñu daal di lem seen i bagages fas dem feneen laataa kilifa yi di jël ay matuwaay. tuyau ndox bi nekkoon fii moo ñu gën a sonn parce dañu leen a woo woo ba sonn tuyau bi di sotti di sotti sotti sotti ba fi yëpp yàqu léegi tool yi am salade nii léegi bu tool di taw. séeréer dañuy gas ci côté bi def ko yoon pour mu bañ a am yoon léegi nag ndox moom nag ñëw nag ak tuyau SONES bii fii yëpp mu yàq ko ni loolu moo ñu sonal depuis boobu léegi la ñu woowoon maire bi pour maire bi ñëw dafa wax nekkee ne à côté fii que lii bu tawaatee wóoru bu tawaatee wóoru parce que étage lay nekk te fii daal bu ñu mënoon dimbali daal defar ñu fii daal bu defar ñu baax parce que suñu dëkkandoo yi nekk fii yëpp ñu defar baax daal mu gën amul nag benn doomu aadama bu ñàkk bakkanam ci li wante nag fii ci Padoa tiit ak njàqare moo fës ci xar kanamu ñi nga xamante ni ñoo fi yeewoo li tax ñuy woo wàllu ci nguur gi laata beneen taw di fi wàcc lu ko moy jafe-jafe yi dina gën a tar ci bile quartier. jaajëf Badara Diop nag moo gàllankoor lu bari kon ci waa ay yëngu dem bi dëkk bi nag moo xaw a tàgga euh, tembekonte ji nag yoon yi xat ndax embouteillage benn nag mënul jaar fenn euh, ñenn sax ba mujj sax daal di rek ay woto mam ñor jàllu ndakaaru yeewook tey ak jafe-jafe taw démb bi ci guddi waral lépp ngir nga jublu fenn tey ab defi bu mag la ndax diwaan yu bari ndox mi da ko nangu yu njëkkee ca gare ferroviaire bu dakaar nag ab mur daanu ca taliba jural leen embouteillage bu amul fenn ca kolobaan nag ndoxum taw bi moo fay buur toog fa temm kenn mënul dem ci kaw nga xuus moo lay tax a jàll canal ba ca wetu université Cheikh Anta Diop nag di gànn ci infrastructure routière yi moom it ndox mi teeru na ko daanaka fees fa dell la def amul fu muy jaar ba dem bu loolu weesoo ñu jublu ca oto à péage nag bu doon élection embouteillage mën nañu wax ni moo jël raw gàdd gi ay oto yu dul jeex nag rangale fa def fa ay waxtu yu bari sëfër sépp àndandoone métti na ay trois heures de temps 4 heures temps ngay def ci yoon yi pour génn génn Dakar man Thiès laa jëm na trop non amul ndox mi buñ ko tànk gaay expliqué ko du dem. ndakaaru xëy tey nag am melokaan bu yéeme loolu foo dem ndox maa fay buur di bumbi ak yàq-yàq ya mu bàyyi mu doon nag lu metti lu askan wi dund tey jii. ca quartier ginnaaw raay nag melokaan bi moo xaw a jéggi day lool nag taw bi moo fa jaxaso ak ndoxu foos yi mu jëf nag liggéey askan bi fay daal di yeewoo ñu ko kon seen ay kàddu rek ngir nag yokku ndimbal ci njiiti kon rawatina nag ministre bi wàllu wér-gu-yaram soxna Ndeye Yaram Touré ak Cheikh Atab Diémé ci leeral ci ëtt bi benn soxna buy fóot tànk yi ci ndox mi mu ngi wis ci quartier Darou Salam 2 ci ginnaaw raay kër yu bëri nii la ñu lu ci ëpp mel ni kenn dëkku ci mbedd mi kenn mënu cee jaa xar kanamu ginnaaw xaay ñaw loolu. sonn rek léegi yeeg ëtt beeg yëppay am ndox duus yeeg yëppay am ndox foos yeeg lépp at bu ne nag nii lañ nekkee toujours bu jot at bu ne nii dañuy sonn rek. duñ am sax fuñ teg ba togg fuñ teg ba togg sax duñ ko am. mënuñu ci dara waaye noonu lañ fi dëkkee moom bu bu tawee ñoo ngi ŋàcc ceeb bi yëpp tooy nañu yenn saay laay sax dañuy tooy bu taw bi arrêté dañuy génne weer. jàkka ji mag ñi kenn mënatul julli yoon wi yëpp yëpp yëpp yëpp ndox la te itam ndegam mbedd mi moo am ndox ndox mi nag far raam ba dugg ci biir kër yi. fii guddi gi guddoon na loolu njaboot yi fi ne nelawuñu ndax fanaane ngacc ndoxu taw mi seeni doom di leen jàppale ab moto pomp bi ñu def ci Daaru Salaam 2 tàmbalee sonn ña fa yeewoo di ñaan ndimbal ndax ñoom nee ñu amuñu xaalis ngir toxu. pendant dix ans nii la ñu dundee ak ndox am nañ fi député mais dimbale ci maire baa ngi fi toog mais dimbale ci. suñ propre moyen rek moo ci dimbale yenn saa ñu for def ci kër yi son nag fa coono di su ñu amee ku ñu jàppale ot ay oto ñu ñuy mànkal ndox mi mën fee jógee wala ñu changé buñu sañ buñu bëggoon sax utal ñu ay canal ñu def ko si koñ bi. mbuus mi góor gi muur ci toit bi teewul ndox mi seen taa ci biir néeg ba ñu dëkk ca biir di jéem a rawale yenn bagage waaye ndox mi jot naa yàq lu bëri ña yeewoo fii am jafe-jafe yu tar ci wàllu dundin. ñu tàllal loxo jëriñ bi ñu dénk wàllu wér gi yaram. dañoo feebar torop xale yi feebar nañu si buru yi yëpp a ngi fii mais amuñu leen ñu koy mën a aare ñu moo tax ma wax ne ministre bi nañu dimbali pour mu ñëw euh, jàppale gannaaw raay dimbali leen ci euh, wérgu yaram. suufu ginnaaw raay mënatul naan ndox mi askan wa ni li ñu gis mooy rek ñu defaraat quartier boobu fi léegi loolu di taxaw nag ñoom ñu ngay wëy di ngàcc ndox moomu tey am yaakaar ni taw mi du gaaw a sóobaat. jaajëf soxna Ndeye Aram Touré ca Touba ak euh, Bambey nag njaboot gu bari ko ñoo fa loru kon rek ci wàllu euh, mbënn mi nag taw yi fa war di fa indi ay gàllankoor tax rek ministre assainissement amal fa doxum nemeeku nag fas fa rek kon ay matuwaay ci wàllu rek nañu provisoirement ñoo ca ak mbay Serre Mbaye ak Bekay ngir tàggoo jafe-jafe assainissement ci dëkku bu sell bi faaw askan fi yeewu am ak taaxirlu ndax mbir mi lee kenn mënu ko saafara ci benn jàpp ñaari at lii lee di lu kilifay nguur gi xam li dañuy wax nit ñi rek ni nawetu ren bi fokk mu xaw a métti nawet bi ci topp aussi probablement parce que le temps ñuy def solution yooyu dafa laaj ñu wuti xaalis bi ñu defar liggéey bi entreprise war koo liggéey donc dañu xam ni yéene président mooy ñu régler problème bi définitivement. Oumar Gueye di jëwriñ ci gàllu wàllu ndox mi ak li jëm ci wàllu assainissement ci biir réewum Sénégal doon amal ab tukki nemmeeku ci dëkk bu sell bi di Touba dellusi ci matuwaay yi nga xam ne jël nañu ko ngir jàppale ñi nga xam ne ñoo nekk ci biir ndox mi léegi. dinañu dolli ay pompe yu am doole yoo xam ni junniy mètre cube heure lay lay lay lay lay lay manque ñaar fukki camions hydrocureurs actuellement ñi ngi am place euh, am nañu aussi quatre euh, électropompes yu yoo xam ni commandé nañ ko dugal euh, bi ñu defee le point al talaata bii di ñëw la ñu yaakaar ni dañ war a mën a terminer travaux installation yooyu yëpp yokk puissance bi pour que ñu mën a pomper bu baax ndox mi di ko wàññi. lim bu takku ci ay doomu aadama nekk ci biir ndox mi ci dëkk bu sell bii di Touba. monte mbir mi ma nga gën a tare ci fili ci département bu Bambey. Ah, fili lu tollu ci juróom-benn fukk ak ñaari njaboot yàqule nañu ci ndox mi lii ba ñu ci bëri ñu rawale leen ci lenn ci ay école Bambey gis nañu effectivement jafe-jafe yu metti am na foofu ci wàllu ndox mi ndax am na kër yu bare yoo xam ne nangu nañ ko euh, ndox mi nangu na ko am na sax ay famille yoo xam ne jot nañ génn seen kër ñu dugal leen ci école yi donc loolu lu xaw a metti la lu doy waar la euh, bi ci des mooy ak service technique technique yi également gis nañu opération yi ci ëpp nag pompage lay doon te loolu ñu ngi ciy gërëm bu baax waa sapeur pompier kon li ñu gis comme solution ak waa Ageroute mooy am na espace bu ñu gis foofu Bambey nga xam ni mën nañ ko defaraat wut ay canalisation yoo xam ne bu ñu ko fa defee dinañ mën a jël ndox mi yóbbu ko foofu mu sore nit ñi beneen solution bi mooy gis nañu également ak service technique bi nekk fii ci assainissement que am na benn cana caniveau bu yàgg bu fi nekk Bambey boo xam ne bu ko liggéeyaatee defaraat ko moom dina mën a collecter ndox yu bare jaarale ko foofu yóbbu ko ci benn zone bu am lotissement bu bees boo xam ne yaatu na te foofu wax dëgg yàlla kenn waru faa dëkk sax. Omar Gueye di jëwri jigalu wàllu assainissement di xam ne nii ngir tàggale Bambey ak jafe-jafe assainissement faw ñu dugal fii lu toll ci fukk ak ñaari milliards ci suñu koppar. moom jëwriñ ji li di Oumar Gueye di xam ne nii nguuru Sénégal taxaw na ngir lépp loo xam ne doon na jafe-jafe yoo xam ne askan wi ñu ngi koy jànkuwanteel ci wàllu mbënd mi ñu taxawu ci rawatina ci dëkk bu sell bii di Touba. ne fili lu jëm ci plan directeur d' assainissement bi nga xam ne moom la ñu fi taxawal nam nañu ko saytu waaye tam def ci seen kéemti lay kattan ba lépp loo xam ne dafay saafara wàllu jafe-jafe assainissement fili ñu taxaw ci. jërëjëf Pape Cheikh Mbaye ca Touba banqaasu assainissement bi nag xaw rek gàllu kon ca Touba plan directeur bi nag la ñuy war a yeesal ngir rek saafara fa wàllu mën bi nag mu di kon ay kàddu bay koo ci jawriñ Omar Gueye ñu teelu ko ba léegi ci micro Pape seex Mbaye Bekay Ndiaye bi ñëwee gouvernement président Macky Sall li ñëw ñu def diagnostic bi gis nañ ni effectivement Touba amul assainissement dëkk bu toll ni Touba ak li fiy ñëw ci nit ak ni mu mel ak ni muy manqué assainissement moo tax ñun ñu commencé liggéey directement sur les solutions définitives mu jël plan directeur assainissement bu Touba jébbal ko bailleur de fonds bailleur de fonds yi ñu gouvernement bi yëpp nag autour du premier ministre ci ndigalal président de la république ñu chercher ay solutions pour loolu am kon li sëriñ bi wax. dañ koy firndeel rek ni dëgg la te incha allah dinañ taxaw def suñu këmtalaay kattan pour que Touba am assainissement bi nga xam ni moo ci wax moo ci waar Omar Gueye ministre assainissement ne mën a Omar kon ndox mu nemeeku ca diwaanu Touba gox bu sell ba beneen ponk ci biir xibaar yi nag ñu àddu rek ci wàllu njàng mi ak njàngale mi ca diwaanu Ziguinchor nag li fa wàdd koon ci ay résultat bac lañu fa daal di nag ñaawlu ca lycée Djignabo ci juróomi jury yi nag téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñett ñoo am rek kon d'office ci premier tour bi nag lu ëpp rek juróomi téeméer war amal deuxième tour bi Cheikh Tidiane Cissé Kaba Cissé rongoñ tuuratu na ci lycée Djignabo bu Ziguinchor ginnaaw bi nga xam ne juróomi jury doon nañu joxe résultat baccalauréat session 2012 proclamation résultat boobu ànd ak xol yu fees. sont déclarés par ordre de mérite les candidats dont les suivent Casimir Théodore Manga mention assez bien. ci li war a toll ki ñaari junni candidats yi nga xam ne ñoom ñoo composé ci lycée Djignabo boobu. téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñett rek ñooy ñi nga xam ne am nañ seen visa pour def étude supérieure juróomi téeméer ak juróom benn fukk ak juróom-ñett candidat yi nga xam ne ñoom ñoo si toftal ñoom ñoo war a def deuxième tour ñi nga xam ne admis nañ nag gërëm i waajur. ma kontaan dama kontaan dama na yàlla vraiment. sincèrement bu ñu sañoon yàlla ñun ñëpp lay may puisque nii la mën a demee sa fois du ñëpp ñooy mën a jàll mais aussi nañ ñaan yàlla ñoo xam ne jàll nañ yal na leen dig daal ñi nga xam ne amuñu aussi nañ góorgóorlu ba beneen. Ah, maa ngi euh, félicité ñëpp quoi ñañoo am mais tous mes di wax di encouragé ñeneen ñi nga xam ne amuñu quoi maa ngi sant yàlla di santaat yàlla di sant seen Maolana Cheikh Ibrahima Niass xam di sant samay waajur sama yaay dafa sonn si ma ñaanal chaque jour xam nga rek pour bac bi. ca collège Saint-Charles Wanga foofu série scientifique yi ñoo fa jongante ñaari jury yi nga am fekk nañ leen fa fanweer ak juróom-ñaar ñooy admis ci premier tour bi ci série s juróom benn at mi ci série benn jigéen nag génn sek mention bien. ginnaaw ci daanu Kolda nag li fa ruuseekoon ci wàllu bac la ñu xaw a rafetlu bu ñu ko méngale ak yi woon rek euh, daaw njiit yi nag ci wàllu lekkool yokk ne kon dafay xëy amoon nag ci wàllu rek njàng mi at mii nag moo waraloon lim gi nekkoon ci wàllu ñi fi am euh, baccalauréat Bokar Kandé candidat yi teeloon nañu ñëw toog di xaar seeni résultat ñu gis ñenn ñi ci ñoom am kanam bu ñagas ñeneen ñi di ree mel ni ñu wóolu seeni bopp ca bu ñetti wattu ci ngoon nag jotee ñu tàmbalee joxe li nga xam mooy résultat yi 4302 Tidiane Baldé Alpha Modou Baldé ci junni ak ñeenti téeméer ak ñeenti fukk ak juróom ñi composé ci jury 425 426 427 ak 428 téeméer ak juróomi benn ñoo jàll ci première tour bi ñaari téeméer ak juróomi ñeenti fukk ak juróom benn war a matali ay poñ résultat yi ñu gis ne dafa neew lool. mais si si seen a jàppale taxawaay la membre de jury yi amoon ci joytu bi élèves yi doon joytu di ñaan professeurs yi oyofal seeni loxo ci correction yi ci njàng mi li nga xam ne nii moom la ki jàng def ci loolu rek la ñu balaa ñuy dem correction ñoom ñëpp dañuy dajale bu dee anglais la wala muy français euh, professeur yu nekk dañuy dajaloo waxtaan xool épreuve yi xool corrigé yi daal di waxtaan ne ah ñun de nii la ñuy corrigé bu ko defee ñoom ñu déggoo ci nit ñuy corrigé bu ko defee aussi ñu teg ko ci ay critères scientifiques yu wér a wér a wér a wér daal di natt élèves yi waaye du loo xam ne nii rek dañ leen di koy yombalal may leen ko noonu te du fekk loo xam ne mu mel bu fekkente ne nag élèves yi jàll ñu ngi fas yéene féete seeni succès seeni waajur yi ñoom li ñuy xalaat fu mu ne nii mooy jafe-jafe yu seeni doom yooyu nar a jànkoonteel ci wàllu orientation yi. jaajëf Bokar Kandé xibaar yi ci wàllu sport nguuru Sénégal nag moo xàttim contrat bu ñaari at ak Joseph Koto mu war nag ànd ak kon équipe nationale bi. wàllu football na kon rawatina rek ci éliminatoire CAN atum 2013 maître Augustin Senghor nag njiital fédération bi moo si àddu ci micro Boubacar Kambel Dieng. diir bi nga xam ne dañ ci dañ ko dañ ko dañ ci teg contrat yi diir bi ñaari at la euh, muy door donc premier août bi di jëm 31 euh, juillet 2014 te bu ñu xaymaa loolu nañu gis ne loolu ëmb na li nga xam ne mooy qualification CAN yi CAN bi ci boppam en 2013. waaye itam yegg na ci éliminatoire coupe du monde ba ñu joué coupe du monde léegi Sénégal war na mun fexe kan bu nekk mu mun fa teew donc 2013 euh, bi euh, dinañu yóbbu si qualification bi nga xam ne dañuy jongante Côte d'Ivoire mu nekk match bu metti ñu soxla si seen maanaam xarañte seen expérience seen compétence mais tamit ñu soxla sénégalais yëpp jàppale leen askanu Sénégal yëpp nekk seen ginnaaw parce que du nekk match bu yomba bu ñu yóbboo ci kan boobu nag. li ñu leen demandé mooy ñu fexe yóbbu équipe bi euh, fu mu gën a soree fu mu gën a soree si suñu gis-gis nag muy demi-finale dañ leen sas nag ñu yóbbu ñu waat coupe du monde ni ñu ko defee woon 2002 mu nekk deuxième participation bi ñu demee foofu nag euh, fixé wuñu leen objectif euh, maanaam jël coupe bi waaye bu ñu ko defee mu gënal ñu mais li ñu leen laaj rek mooy ñu am participation nu mu gën a rafetee wàllu payoor beeg yooyu tamit euh, def naa dafa nekk wàll boo xam ne euh, wàllu entraîneur yi la ku nekk da nga bëgg loolu mu am ci sutura tuuti donc ñun euh, ak autorisation suñu kilifa ministre bi lu ñu doon gënal mooy ñu bañ ci bañ a yegg. kooku nekkoon maître Augustin Senghor njiitalu fédération ci wàllu football Joseph Koto adjoint yi ak VTN nag war kon jublu rek ci liggéey bi boobu nag staff euh, technique moo àddu ci atuwaayu waar bi nag waaye terewul seen xel daal dina rek dal ñu teelu kàddu ak Joseph ba léegi ak Boubacar Kambel Diagne. bi ñuy dafay oyof ci ñun ci kaw yéen ngeen dimbali mooy maanaam tey objectif bi ñu fixé ñun xam nañ ko objectif yu jafe la. mais man yaakaar naa ne tey suñ ma fixé woon objectif sax ne ma dangay ngay gagné ji coupe du monde dama koy signé pour sama dëkk parce que tey su contrat bi doon durer benn fan sax ma jël ko sant ci yàlla parce que au moins dinaa mën demain nekk man Joseph coto liggéey naa pour sama nation liggéey naa pour sama réew benn fan bu nga xam ne am na solo trop ci man donc loolu moo ci am solo damay sant nag yàlla bu baax ñun ba nuy football équipe nationale li ñu joxul Sénégal sunu rakk yi nga xam ne noo ñëw tey ñun ñu leen di tàggat am ko pour Sénégal ñu invité leen ñun erreur yu nga xam ne ñun def nañ ko ba nuy football ba nga xam ne moo tax tey ñun gañewuñu dara suñu génération te pourtant ñun suñu génération footballeur ci génération mënu ma wax ne moo gën ci génération footballeur yi nekk Sénégal mais amul benn génération footballeur Sénégal bu ko gën a xarañ mooy 86. Sénégal si tey dama koy wax suñu gañewul tey dara ba tey Sénégal parce que xool yi noo nekkul benn. tous les entraîneurs sénégalais sont concernés donc tey su Koto réussir Karim réussir tous les entraîneurs sénégalais dañu réussir su ñu échoué tamit entraîneurs sénégalais yëpp nooy échoué ndoo ay kaddu yu Joseph euh, Koto nguuru Sénégal nag na man ak équipe nationale bi rek ngir nag taxawu leen rek bu baax a baax mu na ma nag bi rek kon walam ci toolu contrat bi war a jeex rek ci atum 2014 El Hadj Malick Gakou ministre des sports moo ci addu ci micro Kambel Dieng ñoom bëgge woon signé nañu contrat directeur technique national Mayacine Mar signé nañu contrat Joseph Koto sélectionneur national ak adjoint bi yëpp muy Karim Séga Diouf ak Ferdinand Coly mu nekk lu nga xam ne ni dafa am solo ndaxte kat ñoom ay weer a ngi ni ñu ngi liggéey pour football Sénégal daf fekk rek ne contrat pour nga signé ko ak li fi amoon pour bañ coow amat ci contrat yi dafa laajoon contrat bi ñu xool ko saytu ko ci fànn bu nekk ak agence judiciaire de l'État loolu moo tax président fédération maître Augustin Senghor ak suma service yi ak agence judiciaire de l'État liggéey nañ ci contrat yi ba protéger protéger intérêt état bi mais également intérêt les contractuels bu ñu sant yàlla ba pare dañuy remercier le président Macky Sall bi nga xam ne nii moom ak gouvernement am bi nga xam ne le premier ministre Abdou mbay moo ko giite ñoom ñoo ma sant ne ma nañu def lépp lu nga xam ne nii Sénégal daf ko war a mën a def pour que football sénégalais am ay performance gagner ay résultat ci Afrique ak ci àdduna bi yëpp. que fédération aussi may doole techniciens yi may doole joueurs yi ba yàlla indi ndam pour Sénégal. ndam pour Sénégal El Hadj Malick Gakou ministre des sports yeneen ponk xibaar 20 la ak euh, journal en français ak kii di Cheikh Diaby yaa ngi jëf ci seen teewlu asalaamaaleykum wa rahmatulah taala wa barakaatu.